nga xam ne mooy li nga xam ne moom lañ seq ak yéen ak fi ñu leen teg waxit ñu wax leen ne dina leen ne ñun tamit loolu gëm nañ ko bu baax ndax sénégalais yàgg nañu génn te génn daf nekk loo xam ne ci suñu diine sax farata la ci te def naa ne kenn du wax ay Espagne wala àddina bi du leen wax affaire immigration ñëpp xam nañ kenn ku bëgg a jóg dem kenn foog nga foog nga génn waaye wax leen ne bu rafet nag boo ko taggee nit ki ne ko ku baax la bu fekkee nit la la muy dégg baat boobu mooy soññ lay doon dafa ngaa war a jëm ci kanam wante bu ñu la nee baax la nga daal di xool sa bopp kon da ngay daal di delluwaat ginnaaw waaye bu ñu la nee baax la nga xool ci xool sa ginnaaw li am solo mooy pour da ngay jéem jëm kanam mooy li ñu wax xam nañ ne jafe-jafe mooy li ñu tudd crise danañ ci dellusiwaat bu ñu waxtaanee ak yéen wante crise lu yàgg am na ci nit wante bu mu tax nga jaay sa xol bu mu tax nga ñàkk jom bu mu taxit nga wëlbati sa pas-pas ndax kirist bi ñu ko dee wax xëy na liñ ci siiw dëgg-dëgg mooy kirisu alal rek te kirisu alal boobu du kiris ndax mënut a ñàkk kiris bi gën a am solo mooy kirisu ngëm waaye kirisu pas-pas kiris bi nga xam ne boo ko xasee def ci sa nekk-nekk ci yow euh, kooku ak ñàkk sa valeur ñàkk sa ngëm kooku boo ko xasee ñàkk kooku mënatuloo am ci àdduna lu lu ko wécc bu dee alal rek nag soo ko ñàkkee waxtu bu nekk yàlla mën nga ko amaat kon nag nañu gën a góorgóorlu li nga xam ne ñëpp ñoo tax ñu duñu wax ne Sénégalais yi ñu baax lañ muy mag leen nag xale yi topp ci ñoom xam ne la tax ñu jëmbal ci loolu ba tax ñu am dara lii kooku ay jaar buñ fi nekkee woon leneen kon lii tey am kon nag su ñuy ñëwee nañ gën a góorgóorlu topp ci ñoom lépp loo xam ne dafay tax dafay wone ak doyadi ak loo xam ne dafay yàq lii ñu fi am ñu bañ koo ñu bañ nekk ñu ànd ak mag ñi euh, góorgóorlu euh, liggéey jàppale nit seen développement parce que wax naa leen ne leen ñëw ñëw gi ñu fi ñëw buut rek dem ndax hijra bi ngeen def ko nga xam ne immigration bi ngeen di wax mooy bu yoon sa aslan dafa koo xam ne hijra maanaam émigration bi daf koo def ngir boppam kooku boppam rek la ci yàlla wante koo xam ne émigration da koo def li lay war a soo li ñuy tamit kooku tamit moom mooy mooy lii ngeen def mooy ñëw fenn bokk bëgg lu baax bokk nit lu baax day yëpp fas jog ngir seen njaboot loolu dafa nekk xalaat ci diine kon na ngeen gën a góorgóorlu loolu lañ wax ñoom ba ñoom wax nañ leen leneen nit tamit nit ki boo bëggee mu jaxasoo ak yow fokk it mu di xelam dal xelam dal mooy mu am lu mu fi téye loolu mooy eh, fexe ba ñu yombal lañ leen seen nekk te loolu xëy na ay kayit lañ doon ndax dana tax ngeen mën a bokk ak ñëw rek dem waaye ñëw ngir ànd ak ci seen li leen jëme kanam kon daal ñu loolu lañ fa jot a def ànd ak suñu Cheikh Oumar mu taxawal ci taxawaay bu rafet ñu dellusiwaat ci fekk ñu ca hôtel ba ñu gën a xóotal waxtaan ci lépp loo xam ne gën a defar ànd bi loolu moom kon ñu ngi leen di gërëm ne lii ñu ko jox loolu wane na ne euh, lii tax ak bi mën a jëm kanam mooy lu mel ni nga moom lañ doxee moom moom lañ am moom lañ jaarale moom lañ mujjale bu bokk lu bare loolu ñu xooluñu ko kon ñoom dañu leen di gërëm ñaan yàlla yàlla ci jàmm kon ba kàddu ñaane ci dëkk yi ci barab bi nga xam ne lu gën a naan la lu jërëjëf هذا من ذلك ولا من ذلك فقرأ الكرامة الذي